kenn laa ko njëkk a tuddee muy yonte yàlla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam ndax dédicace bi dama ko ko defal pour tontul ko ndax dafa am ñu toog caricature ko ba pare taxaw ni am nañ droit pour caricature ko ma ni ko livre bi man maa ngi la koy yow yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ko ba taarix daree ba léegi amul kenn ku am prestige bi nga am ma ni ko minal azal ilal abad baa dina sosoo ba fa ñu jëm ba fa muy jeexe yow yaa gën ñëpp ma ni ko ñi dañ la xamul te mënuñu laa xam nag li tax mënuñu laa xam mooy ñoom ci seen taarix ci seen civilisation amuñu ku tollook yow amuñu kuñ la mën a méngaleel ñoom ñiñ gën a gën a gëm képp kuñ gën a gëm ñoom bàyyam ak sewu la ci wex ma ne ko man Cheikh Yérim sekk mi nga xam ne yàlla wërsëgale ma man maay papay Mouhamadou Moustapha may papay Mouhamadul Bachir maay papay Mouhamadou Bamba maa ngi lay gërëm ci ni nga xam ni noonu la message bi nga indil àdduna bi defaree dund nit ku ñuul ci kaw suuf bi ma paree ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki ma ci toftal te tudde ko téere bi mooy cheikh al islam cheikh Ibrahima Niass ndax téere bi dafay natt fi Sénégal tollu tey ma ni ko cheikh al islam cheikh Ibrahima Niass yow wane nga ni ni Sénégal mën naa dominer àdduna bi ndax yow sénégalais nga bu jóge fii tas àdduna ma ni ko fi mu toll nii am na ñeenti téeméeri million nit yu la gëm ci àdduna loolu mooy wane ci mondialisation bi ñu toll Sénégal mën na jóg song àdduna tas ko ma ni ko Tahir Bouchi nga xam ne du sax sa taalibe sa taalibe taalibe la lim am ci taalibe mi ngi méngoog ñaari yoon population Sénégal ma ni ko man mii nga xam ni maay papa yi Sidi Souleymane di papay Babacar Babacar nag tur la ci baatin ñi am maxrifa xam nañ lañ mooy Babacar ci baay ma ni ko maa ngi lay gërëm ci li nga ma xamale yàlla